une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aouzu billahi min ashaytan irajim bismillahi irrahmani irrahim awnaka ya muinu wa bika nastain wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahi al amin sayidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima laqin lisaani waxlan minhu luqad wa jaalhu zakiran wa shakiran abad bokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci seen site bii di Rafah TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel bu baax a baax di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaanal saahibul fadila Cheikh Ahmadul Muntaxa ibnu Cheikh Ahmadul Bachir yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko waaye itam tey jii ñu am mbégte mu rëy rëy ñëw ci pàkk boo xamante ni benn pàkk la ci pàkk yi Sëriñ Tuubaa yi pàkku njabootuk Cheikhul Xadim Maulana Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke mi nga xamante ni moo di ñeenteelub xalifab Cheikhul Xadim di eh, jàmbaari lislaam joo xamante ni eh, bisam dafa jege si ñu war ko waxtaane nag ndax eh, dañuy wax ne képp koo xamante ni nettali nga la waxtaane nga waaju baax ju fi nekkatul dafa mel ni yow yaa ko dundal man araqa aaliman aw muuminan fa ka annama ahyaahu loolu moo doon sababu ñu war a ñëw ak yéen dajawaat waxtaane waaye ñu ànd ko ak commission culturelle bi nga xam ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci organisation ak waajal gi nga xam ne ñu ngi koy waajal màggal di bisub jàmbaari lislaam jooju di Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Mbacké tey jii ñu ànd ak euh, Serigne Abdoul Khadir Jili mi nga xamante ni euh, kenn la ci euh, membre commission bi waaye di njëkkee ci nuyoob commission bi waaye ci nuyoob waa kër gi itam Serigne Cheikh Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Khadir gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ngir wàccaay màggal Cheikh Abdoul Sëñ Abdou Khadre ñu ngi lay ziare bu baax ginnaaw ba nga nuyoo ak suñu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ànd ñun ci euh, chaîne bi di Rafah TV ñu bàyyi la kàddu gi nga nuyoo te ñëw ci waxtaan wi nga xam ne sumb nañ ko nas ak yow rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu a waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida wa bi kalaami wa bil ishaara ihdi muridan yatlubul inaara assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bokki jullit yi tedd yi bokki yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ñu ngi di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ziyaara Sëriñ Abdul Ahad nga xam ne moo ñu seet si fii ànd ak suñu mbokk Sëriñ Murtada ñu ñëw fii ci waajtaayu màggalu Sëriñ Abdul Xaadir kon Sëriñ Abdul Ahad ñu leen di dalal ci ni nga ko waxee turu Sëriñ Abdul Xaadir mi xalifa Sëriñ Abdul Xaadir ak Sëriñ Siidi Mbàkke mi nga xam ne moo ñu teg màggal gi ci loxoom mu jiite ko ak ci turu commission culturelle bi nga xam ne Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Modou Serigne Abdoul Khadir moo ko jiite mu joxoon ñu ndigal ne bu ngeen ñëwee nañu ànd ak yéen ci mbooleem loo xam ne yitte woo ngeen ko ci xam ak xam le jëmm ju baax ji nga xam ne waxtaane ko dana am njariñ lool ci jamono ji nekk waaye rawatina jamono yi ñu toll ak jafe-jafe yi àdduna dund bu ñu waxtaanee ku mel ne Serigne Abdoul Khadir ak nam teg tànkam ci sunna nam doon jaamoo boroom ak la ko yàlla fayee danañ xam ne kon ndekete jamono yi ñu nekk jafe sax roy ci sëriñ Abdul Xaadir man na koo solution mën na koo saafara kon ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu làmmiñ wu jub ak xol bu ubbi ko ba liñ bëgg a wax ñu man ko wax waaye ñu bokk ci ñi nga xam ne nag buñ déggee wax danañ tànn la ci gën a rafet jariñoo ko sëriñ Abdou Lahat jërëjëf euh, sëriñ Abdul Xaadir Diop ci euh, ubbi googu nga xamante ni ubbi nga ko mu doon lu am solo euh, li sababa saba sababu suñu ndaje mi mooy waxtaane ku mat a waxtaane di sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ni nga ko waxee amaana waxtaane ko ca nañ ko war a waxtaane war naa mën a sax doon solution ci crise morale Euh, maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni doomu adama yi ñu ngi koy dund ci jafe-jafe jikko ak euh, li ñuy wax euh, référence Sëñ Abdul Xaadir doonoon référence bu mag a mag ci lislaam ngir ñu bëgg a dugg léegi nag ci waxtaan wi faw nag ñu xamle mooy kan ab juddoom ganek jamonoom waaye tam aw askanam itam bu fekkente ni mën nañ cee tënkal rek ñu laytaale ko waxtaan wi incha allah. xamle ko yomb na ndax nekk nekkuy sa waajur ñu ne Serigne Touba kooku xamle gi moom leer na naññi ndax euh, sëriñ Mouhamadou Bousso doomi sëriñ Mbacke soo daa waxoon ne njabootu sëriñ Touba gi ñoom ñëpp dañoo mel ni ay biddiw ci ab leeraay ci yëkkatiku ba nga xam ne koo ci gis rek da ngay defee ne mooy sangub jamonoom fahumu kan nujuumi man talqa minhum xiltahu kaana sayyidal axyaari daanaka koo ci gis da nga mooy sangub jamono ji ñoom ñëpp nag benn benn adresse boobu la ñu am benn melokaan boobu la ñu am. sëñ Abdul Xaadir kon Serigne Touba mooy waajuram waaye moom lim amaat ci sëñ Touba mooy dafa nekkaat mbokkam ci wàllu askanam waajuru mu jigéen ndax bu nekk kuy waajuru mu jigéen ñu ne soxna Aminatu Bousso kuy waajuru soxna Aminatu Bousso ñu ne sëriñ Bousso be mi jur soxna maam jaaratullaahi kon moom sëñ Touba day waajuram di nijaayam bu ñëwaate man bu ñëwaate soxna Kanni Mbàkke mi jur sëñ Abdul Xaadir mi jur mi jur soxna Aminatu Bousso soxna Aminatu Bousso mooy waajur sëñ Abdul Xaadir soxna Kanni Mbàkke jur ko soxna Kanni moom it askanam delluwaat ci maam Maharam nga xam ne sëñ Abdul Xaadir daraam rek génnut sëriñ Touba mbokkama doomama di taalibam di léppam kon moom xamle ko yaakaar na loolu doy na ci askan. macha allah bu dee ci wàllu euh, njàng mi ni nga ko xamlee ci askan wi ak ci ganek jamono gi yaakaar naa ci ñetti fan ci weeru tamxarit 1332 euh, 33 wala 32 su ko defee itam 33 ci 1914 lay dëppoog su ko defee loolu mooy euh, taarix bi su ko defee njàng mi itam xam naa ne fi doomi soxna yëpp di jaar ci am njàng bu ñu mënoon tënkal rek moom itam am njàngam moom itam fan la jaar ak yenn loxo la jaar ba mel nii mu mel nii jërëjëf sëriñ nga Abdou Lahad sëriñ Abdou Khadir dañuy wax ne yàlla da koo tànnal ci xeet yépp da ko caa tànnal la gën ndax buñ ne tànnal na ko sëriñ Tuubaa muy waajuram ku ne xam ne ne tànnal nañ ko waajur wi gën waaye askanu Mbàkke di askan woo xam ne wu ràññi ko la ci yi woo xam ne moom kuñ ko tudd ñu xam ci am xam-xam ak diine ak jub ak baax ca cosaan ba léegi kon askan yàlla tànnal na ko waaye noonu la ko tànnalee itam euh, feeñu jamonoom ndax ni nga ko waxee léegi mi ngi feeñ jamono ci ñett fan itam xarit di weer wi nga xam ne wenn la ci weer yi yàlla warmaal muy alashurul xurum na ko weer wi la ko tànnale itam bis bi ndax mi ngi feeñ guddik ajjuma te ku ne xam ne ajjuma mooy sayyidu ayyam mooy sangu bis yi kon yàlla tànnal na ko bis waaye tànnal na ko itam waxtu woo xam ne ci la feeñ jamono tànnal ko weer wi noonu la ko tànnal waajur waaye noonu la ko tànnal it pàkk bi mu feeñee sëñ Abdou Xaadir fu mu feeñee daarul alimil xabiir muy ndaam daarul alimil xabiir ko sëñ Tuubaa ak la tax mu sanc ko da ngay ne barab bu sëñ bi fonk la ndax da koo sancoon ngir jàng ak jàngale teg fa sëñ daam Abdourahman muy jàngal njabootu sëriñ bi foofa la feeñee jamono kon moom yàlla tànnal na ko ci xeeti tànnuwaay yu bari yu wuute ci biir loolu itam euh, bi mu feeñee jamono sëriñ Touba ba matadal sëriñ Touba da ko woolu ndax sëriñ boobu mi ngi njaareem te li ci yéeme it mooy ba mu feeñee jamono la sëriñ Touba waxoon maam Thierno demal jox ko aw tur te koo dajal fi ngay dem ba dellusiwaat yàlla jéggal ko maanaam booy dem di ko joxe tur ngay dem ba ngay dellusi koo dajal yàlla jéggal ko kon loolu lépp day way ne ki feeñ borom la maanaam te sëñ Tuubaa yow moo waxoon ne samay doom képp ku ciy feeñ jamono indaane la maqaam mu kawe ba noppi yàlla yar na ko mu door a ñëw loolu sëñ bee ko xoon kon yar leen seen i njaboot man samay njaboot yàlla yar na leen kon feeñ jamono gi yooyu la indaale ci ay kiimaan bi matee dalil sëriñ bee ko wol boppam njaareem bi mu dikkee moo ko daralal boppam alxuraan yabalaat ko mu dellu si sëñ Daam Abdourahmaan sëñ Daam Abdourahmaan jàngal ko ba mu àgg ci sori lool mu yóbbuwaat ko ci sëñ Mbàkke Buso mi nijaayam sëñ Mbàkke Buso boole ko ku ñuy wax sëñ Birahim Njaay mooy waajur sëñ Njaay kenn ci bàyyi sëñ Njaay kenn ci mag yi ànd ak sëñ sëñ Birahim Ndiaye moom fa la wattu alxuraan ba bind ko mokkal ko ci mokkal wér bi mu noppee ci loolu it xam-xamam sëñ Mbàkke Buso moo ko jàngal te ku ne xam na sañ sëñ Mbàkke Buso ci xam-xam loolu kenn wérantewu ko waaye itam jàng na sëriñ Muhammad dem ci njaareem kon ci tënk rek ñii mu jànge day wone ne borom xam-xam la ndax wa man taallama bila muallimin muhaqqiqin fa innahu zuwaham xam-xam moom bala nga koo am da koy jànge ñi ko xam ndax ko xamul nit ki du joxe ko arab yoxee sëriñ Abdul Xaadir ñi ko jàngal ñëpp xam nañ ko boo ne sëñ Mbàkke Bousso kenn ëmpalewu sëñ Mouhamad dem ci njaareem mu fassir bu mag boobu ñëpp xam nañu kon jaar jaaruwaay yi daal ci tënk gu gàtt ci la jaar ci wàllu xam-xamam moo ñu wan na it borom xam-xam la la jërëjëf borom xam-xam borom xam-xam yi ñoom ñoo ko seedeel ne borom xam la borom see borom xam yi ku ñu seedeel ne am nga xam-xam rek am nga xam-xam su ko defee euh, ni nga ko euh, waxee ci am njàngam waaye ak juddoom itam gane ak jamonoom nga xam ne léppam dafa doon lu ñu tànn kon sëñ Abdou Khadir yàgg naa doon ab tànneef ci ab euh, bés bu mu juddu ci saydul ayam di guddig ajjuma naka noonu ci weeru tam waaye itam ci dëkk bu tedd pàkk boo xamante ni Serigne Touba dafa tegoon sëñ Dame Abdourahmane muy jàngale doonoon universitaire boo xamante ni prof université mën nañu ko tuddee noonu ndax ñu bëree bëri ci kàngam yi sëñ Dame Abdourahmane moomu jaar nañ ci ay loxoom waaye mel ni que sëñ Abdou Khadir itam ni mu mel nii la xarwa mënutoon a ñàkk mu mel nii ndax koo xamante ni dañ naan Serigne Touba moo ko njëkk a dalal baa moo ko jàngal daanaka bu ko neexoon ni mu koy defee ñenn ñi mu saleen waaye mu jël ko nag teg ko ci ay loxo ku mel ni Serigne Bakke bu sa tudd nga ko doonoon koo xamante ni aalim la woon doonoon ko ku jàng ko xam lool xam yi diine yi ci réew mi bokk na ci ñi gën a sut ñi gën a raw ci wàllu euh, feq euh, dan itam borom xam-xam boo xamante ni borom xam-xam yëpp seedeel nañ ko euh, ngir waxtaane sëñ sëñ Abdul Xaadir ginnaaw am njàngam ginnaaw juddoom gu màgg waaye jaaruwaayam itam mu mel ni ki itam laaj na nag li ëpp solo ci jëmm mooy la suñu borom waxoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te tàggee woon ko ko wa innaka la ala xuluqin azim muy jikko ku xam sëñ Abdou Khadre xam ne borom jikko la woon ju rafet borom jikko la joo xamante ni léppam ci lislaam la woon ndax ba gaañu ñëwee ci sallallahu alayhi wa sallam ci saydu adam amina wala saydatuna aïcha ni di laaj sayduna Muhammad naan ay jikkoom moo doon lan daf leen kaana xuluquhul quran mu mel ne que mënees naa jël itam mbubb moomu solal ko sëñ Abdou Khadre ne moom kat ay jikkoom moo doon alquran jikko yi xam naa yépp mënuñ koo wax waaye sëñ Abdou Khadre bëggoon nañ ci sa turandoo nga ñëw waxal ñu li nga xamante ni lenn la ci loo xamante ni mën nañ koo jàpp royee ko ci moom ci ay jikko yoo xamante ni jikkoo woon na ko. jërëjëf sëñ Abdou Lahat ni nga ko waxee ku jaar fii mu jaar ci waajtaay yi ko yàlla waajal waaye itam waajtaay yi nga xam ne waajtaay yu doomu aadama la yoo xam ne dañ ko war a defal nit dañ defal ko ko jaar la ko fa gën. ku noonu la ñuy ci moom rek mooy mu jikkoo jikko yu tedd te mooy makaarimul axlaaq sëñ Abdul Xaadir makaarimul axlaaq moo ay jikkoom te mooy mbooleem jikko yu tedd lu cay mbubb solal kooko dana ko jot sëkk du ko ëpp du ko yées. te loolu li koy firndeel mooy diggante ak boroomam la jiital ba jeex ca takk ndax ku ko xam ku dégg sëñ Abdul Xaadir ak julli da nga xam yitte jim joxoon julli te julli mooy yi nga xam ne bu xasee jag ci nit ki lépp jag ndax bis penc yàlla li muy jëkk a seet ci nit ki mooy julli bu fekkee fonkoon na julli rek yeneen mbir yëpp yàlla da koy woyfal waaye bu sàgganee julli dara du jag waaye itam Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku mbir yi yitteel ba nga bàyyi fi julli doo jariñ ci julli doo jariñ ci mbir yi waaye koo xam ne jullee la yitteel ba nga bàyyi fi mbir yi da nga jariñu julli da nga jariñu ci ci da nga jariñu ci yi julli kon bu ñu jëloon julli ni mu ko joxe woon yitte rek danañ xam ne léppam jag na ndax moom la war a jiital jiital te mooy digganteem ak boroomam sëñ Abdul Xaadir lañ tagge woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaamul Busayri tagge woon ko ko wax ne ci rawam ci la tàmmoon ak baax ci la tàmmoon jikko yu tedd loola moo ne ci sëñ Abdul Xaadir maanaam bi mu doonee tànk ci saahir rek ci la ko sëñ Bàkke bu su moom ràññee ci fonkum fonk jàkk nga xam ne sëñ Mbàkke bu su muy nijaayam ràññe woon na sëñ Abdul Xaadir ci bëggum bëgg jàkk ak taqoom taqoog moom te na ca ndaw lu màgg ci julli moom jëf na ci jëf yoo xam ne waaye na ci exemple ndax am na bis rek muy taw taw bu bari lool ba nit ñi naa ko tee toog jullee sa biir kër waaye dafa xuus ca taw ba dem julli ji ba mu dikkee lu mu leen wax xuus ci taw bi julli ji moo gën xuus ci sawara loolu bind la boo xam ne ngir wane ne jaam bi diggante ak boromam la war a jiital kon loolu moom daf caa jeexoon tàkk damaa jëlale farata yi waaye naafile yi rek joxoon na ko yitte yitte goo xam ne bu xasee jot dara mënut a dox digganteem ak loolu lu mu mën a jàpp ba naafile jot naafila muy muy rawaate bi ñu def ci bis bi lu mën a jàpp bu ci tee ko ak lu mën a doon te feeg nëppu ca dara du ko yàqal loola loolu kon day way ne jikko yi war a am diggante ak boromam matal na ko sëkk nga ñëw nag ci digganteem ak jaam ñi ndax jaam bi daa war xam ne borom tabaaraka wa taala da ko war a jaamu jox àqam waaye am na ñu nekkal ci kaw suuf ñoo xam ne la Sëñ Tuubaa waxoon waraahi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mbindeef mu nekk yàlla ko bind te yàlla mi ko bind foowantu bind ko ay yaxsabul insaan ay yutrak suda yàlla daf ñoo bind ngir mbir kon ki ginnaaw jàmbur yàlla da koo bind ngir mbir dangaa war a jox ak mbooleem jaam si Sëñ Abdul Xaadir noonu la joxoon jaam ñi ak bokk na ci loolee digganteem ak jaam ñi yërmande yoo xam ne ëmbaloon na ko bokk na ci yërmande ja daana wax ne lu ma su ma fatoo ñaar ñii moom saa buñ dikkee nañ ma fëgg te mooy ku jaan matt ak jigéen ji tollu diggante maanaam jigéen ji toll ci mat xoolal xam na jigéen bu tollee ci mat na ci metti bu gën a tar ci metti yi te soxla na ko dimbali te moom na dimbalu jàmm ñi la woon nee na foofa moom lu mu fatu fatu nañ ko fëgg ne ko diw kat daa tollu diggante mu jóg ñaanal ko te bu ko ñaanalee yàlla musal ko waaye ku jaan matt it waxtu wu mu doon nañ ko fëgg kon lii yërmande la maanaam yërmande la ginnaaw boo xamee ne borom may na ko barke boo xam ne lu mu ñaan yàlla may ko ko mu fas yéene jariñ jaam ñi te li ci mooy dafa doonoon ko yomba gis ndax amoon na programme bu nosu boo xam ne waxtu ne man ngeen sëñ Abdul Xaadir wa nga koy fekk mooy da nga naan diw di xam naa soxla naa dafa jafe moom kenn mënu koo gis am na njariñ waaye kenn mënu koo gis lu muy njariñati sëñ Abdul Xaadir daa am njariñ yomb gis loolu kon yërmande moo ko mayoon loolu waaye noonu la leen doon dimbalee ci alalam ndax nee naa léeg-léeg nit ñëw soxla dara nga ñaanal ko te dafa am aajo fekk na ñaan nga baax na waaye loola tax ko woon a jóg parce que boo ko ñaanalee bu jógee day wuti fu mu faj aajoom ja nit bu la laajee aajo koy jox aajo ja ba noppi door koo ñaanal sëñ Abdul Xaadir noonu doon def ak nit nit ñëw na mu may ko ko ci mayin woo xam ne ko jàppandi lool la xam ne téeméeri junni jamono jooju ay million la fi may wax yow loolu yërmande te kak ñaan yor bor a ko ko teg sëñ Abdul Xaadir xamul ko sax ko ko tey Tàmba la bàyyi ko la ko rek dikk ne ko damaa yor bor dañ maa tëj fekk bustaan sëñ bi ne ko ñaar fukki junne fi nekk naa la ko jox bu alxames nga ñëw mot li law ne bu la neexee nga paas ci ñaar fukki junne yi dellu sa kër bu alxames nga fekk ma Tuuba kooka it ni mu si gis Sëñ Abdu Xaadir ni mu ko yaatalee mu ko teral ñu ngir fonk ab dëxal nekk fi naan ko xaaral ma summi ko xaaral ma def nangam déedéet ba mu dikkee la mu njëkk a def mooy génne téeméeri junni joxaat ko mu ñaata joxoon na ko ñaar fukk joxaat ko yeneen waaje commande la sëñ bi ne ko lu xas a génn ci man dem na du dellu si waat xoolal jooju yërmande waaye ma loolu kon jik koy tabe la loolu xeet na ci ay nit ci fa ci façon bu nekk kon mën naa ne yërmande ak tabe yëpp mën nga koo natt sëñ Abdul Xaadir muy jikko joo xam ne meloo woon na ko waaye itam doonoon koo xam ne jikko yi fonk ak bokk mooy li nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala daf koo digle ci diggante jaam ñi ñuy yéwénal seen diggante loola it bind la ci woon boo xam maanaam sëñ Abdul Xaadir la woon te mooy digganteem ak jullit ñi ci anam yépp daf ko rafetal mooy jullit boo mën a doon sëñ Abdul Aziz da baax daana ko tagg tagg na ko ci xasida wax ne kaana adal xalqi xamulan saabira maanaam nga xam ne lor yi mindee fi da ko daan yenu doonut koo xam ne nit da koy lor mu fayantoog yow waaye lu ko waaye teg ci mettit ak i lor da koy yenu muñ ko ngir jëmmi yàlla waaye itam féetewu moom di leen dimbali rek ci jëm ngir jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala kon tabe waaye itam am yërmande ci jaam ñi loola lenn la woon ci jikko yoo xam ne manees na ko tudd ci sëriñ Abdul Xaadir waaye doon koo xam ne ñaanam gi nga xam ne yàlla mayoon na ko daana wax ne man day dama am kersa sax sama lu ma ko ñaan mayoo ko dama ci waaye ñaanam googu kat julli ñëpp la ko doon ñaanal xoolal sëñ Abdul Xaadir bi nga xamee ne Abdou Abdou Diouf yónnee na ci moom ndaw jamono euh, ko maanaam li nga xam ne moom laay dénk taalibe yi mooy jaamu yàlla sax ci ndigal sëñ Tuubaa te nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci àdduna nañuy def ak ñoom modaara bu rafet mooy lépp leen seen diina bañalut buñ ko sàkkoo ñoom dañu ko defal xoolal boobu message bu am solo nga xam ne maanaam ah jox na yàlla àqam bu mat jox na yàlla jox na mbindeef seen àq ba mat waaye ñu yor wàllu adduna gi sax dañu jox seen àq ba mat nga xam ne lépp lu ñu na ko matal kon loolu lenn la ci ay jikkoy sëñ Abdul Xaadir yi nga xam ne benn boo ci jël rek dafay doy sëkk ci wane e, jikkoy dëgg-dëgg ab jullit njëlbeen nga mooy fonk gum fonk diggam ak boromam wax nga ko fonk goo xamante ni daawut ginnaawal lenn e, ba ci sax gis nañ taxawaay yi nga xam ne daan na ko taxaw ci nawaafil yeeg rawaati bi lu du tax sëñ Abdou Khadir soppi programme programme mu digg ak boromam dara mënut a tax mu soppi ko moo xam taw la moo xam lu mën a doon nettali nga fi loolu nga xamante ni gaaroon na ko ci waxtu julli jot santeeg muy taw mu xuus ci dem julli ji loolu itam di wane ne eh, eh, taw du ngàntal iliman su ko defee itam diggam ak boromam ni nga ko waxee ku fonkoon jumaa la eh, bokk na ci ay turam sax yi gën a ràññee ko mooy iliman imaam suñu nee imaamul imma ilimaanu ilimaan yi xel yëpp day dem ci sëñ Abdou Khadir ndax dafa dafa yëmutoon rek ci doon imaam ci tur bi rek waaye lépp lu baatu ilimaan daan tekki sëñ Abdou Khadir daf koo daf koo dëxëñaale doxee ko waxee ko ci yërmande ja wax nga fi léegi muy yërmande ji nga xamante ni amoon na ko jëmale ko ci jaam yi ba waxoon ne saa suma ma foto ñaar rek bu ñu ñëwee bu leen bu leen téye muy koo xam ne jaan laal na ko wala jigéen ju toll ci aw mat ñu war koo dimbale ku doonoon itam ku nangu ñaan la ndax ak ñaanam ñëpp soxla woon nañ ko ndax daa doon koo xamante ni ku jege borom la wattaqullaaha ya'lamukumullah na nangeen ragal yàlla yàlla xamal leen waaye ku ragal yàlla itam yàlla doon sa lépp ku ku nit hadis ba wax na ko nit du jege du ma jege-jegelu ci ay jaamu yàlla ba ma far doon ko loolu sëñ du Khadir dafa mel ne kon hadis boobu mënees na koo jëmmal ci sëñ Abdou Khadir ne ji nga xam ne am na ko itam ci jaam yi ndax euh, bëri waa ni ñoo xamante ni moo leen moo leen jullee jébbal leen seen borom ñaanal leen dox diggante ak seen borom subhanahu wa taala loolu itam bokk na ci li nga xamante ni dañ ko danañ ko danañ ko nettali ci ay nettali yu bëri bëri yoo xamante ni am na jëmm joo xamante ni dafa jógee woon Sëriñ Abdou dafa jékki ba yàgg eh, ci niñ ma ko nettalee dem ca barab ya di laaj ba xam ñëw na yónnee fa ndaw ñu ne ko jëmm jooju ñëwagul ku jógee Kaolack la ñu taxat yàgg demaat fa di laajte ndekete kooka dafa fasante woon moom kóllëre suñu borom bi mu wàccee liggéey suñu borom xamal ko ruuxam wàcc na Sëriñ Abdou Khadr dem di mottali kóllëre googa dem di ko seeti di ko di ko taxaw ngir jébal ngir jébal ko boromam kon loolu day mel ni kon na la joo xamante am na ko ndax bu ko neexoon yable waaye ak yu bëree bëri ci ay mawaaxif yoo xamante ni taxawee na ko ci diggam ak euh, ñi nga xam ne ñoo fi ñoo wuy ji seen borom di taxawaay yoo xam ne tam war na ñu indiwaat ko ndax ku dee xam ne na sëñ Abdou Khadir day dayob dayob dayob dëgg dëgg kilifa diine da ko da ko yoroon doonoon doomi Sëriñ Tuubaa loolu doyoon na sëkk waaye doonoon itam xalifa ci jamono waaye doonoon itam léppi sëñ Abdou Lahad ci ay jamonoom waaye itam taxut nag benn yoon muy muy muy muy muy muy yéegal boppam foo xamante ni yëggu ndax euh, gis nga ni nga xamante ne la wàccee woon boo ci wàcc nga xamante ni wàcce na ko darajaam ndax bokk na ci daraja li gën a li gën a jafe mooy wàcce sa daraja ndax kenn daawul rang ci diggante ci këram ku ñëw am na waxtu woo xamante ni ni nga ko waxee boo ñëwee da nga koy daal di mën a séen kon mu mel ni kii sëñ Abdou Khadir bu ñu ko dee waxtaanee ci ay jikkoom daanaka mën nañoo jël waxtu yu bëree bëri te ñu jeexal waaye dañ ciy tënk rek yooyu nga xamante ni euh, daan na ko daan na ko sàlloo bokk na ci ay jikkoom itam mooy ku ku respecté woon rendez-vous la ndax rendez-vous bi ko respecté rek rendez-vous dana la yomb lool ngeen respecté ko mu mel ne ki sëñ Abdou Khadir bu ñu koy waxtaanee danañ waxtaanee diggam ak Serigne Touba ku ko fonkoon la ku ko bëggoon la ku ko daan liggéeyal la ku daan fas yéenee doon ab taalibeem la waaye daawul sax yaakaar ne sax a doomam la ci moom loolu bëgg nañ nga ñëwal ñu ci diggam ak Serigne Touba ak njabootu Serigne Touba gi itam ay magam ak i rakkam waaye itam mbokki Serigne Touba itam waaye mbokku lislaam gi sax su ma ko mënee yaatal ba ci borom xam yi gis nañ ñim leen fonkee woon wax nañ ne ay xaritam sax dëgg-dëgg ci jàkkal lañ leen tànnee loolu sëñ Abdou Khadre bëgg nañ nga ñëwal ñu ci léegi nii. jërëjëf sëñ Abdou Lahad ci leeral yu am solo yi nga indiwaat ci sëñ Abdou Khadre ak i jikkoom waaye ni nga ko waxee jikko yi moo yaatu yaatu goo xam ne buñ ko toppee dana jël waxtu wi te ni nga ko waxee digganteem ak Serigne Touba wax naa la ne la Serigne Touba waajuram la di mbokkam waaye nag teewut Cheikh Mahamadul Fadil dafa jaayante woon Serigne Touba jaay ko ak njureelam jënd ko ak taalibe waaye loola mën na maa wax ne defal na ko Serigne Abdou Khadre ndax moom taalibe Serigne Touba la woon boo xam ne li Sëñ Tuubaa bëggoon rek ci la saxoon dàkk wax naa la kàddu gu mas a yëkkati lam cay digle mooy sax ci ndigal yàlla yi wattandi ko tereem yi te tënku ci ndigal Sëñ Tuubaa yi maanaam moom a wax rek na loolu sa kàddu da nga fàttali ndigal Sëñ Tuubaa yi li na Sëriñ Tuubaa musta juwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ba taxoon loola lu mu daan digle waxtu nekk la ko nga xam ne ne Tuubaa gi dëkk bi Tuubaa fonkoon la Sëriñ Abdul Xaadir nee na Sëriñ Moodu Mustafaa moo ko waxoon ne ko defee lu baax fu ne sakkan na waaye tu baax na defee lu baax fa ne baax na waaye Touba la a sakkane ba mu déggee loola koor ngàtt nga sax bu koy woore Touba la koy woore loolu topp ndigalu Sëriñ Touba maa bëgg-bëggu Sëriñ Touba waaye topp ndigalu ma na a na ci bëggal ko dëkkam ak xam àq xam dëkk bi am na ko waaye itam ku ne xam na ne jumaay sëñ Tuubaa ji moom lañ fi tegoon mu koy jiite ci ndigalu sëñ Abdul Ahad lu mat ñaar fukki at yu tegal yoo xam ne mooy jiite ajjuma ji te fonk fonkin woo xam ne wax nañ fu mas a nekk alxames ngoon nañu bisi nga xam ne diir bi mu ko jiite amu ci benn yoon boo xam ne ajjuma jot na gisuñu Sëriñ Abdul Xaadir lu dul aju ci diine ji far jébbal lépp moom ne moom lépp lu aju ci diine ku ci am lay waxati demal ba Sëriñ Abdul Xaadir nga xam ne loolu moom ab cëram woon boo xam ne moo ko yore woon te mate ko sëkk ci ni nga ko waxee léegi taxaw ñi fi bàyyi ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tudd doom yeeg ba ci cër yeeg yëpp daf lépp luy sunna rek lum nuru nuru lu woyof ci zahir moom da ko daan jëf ngir na yoo xam ne boo ko yoo xam la sëñ Abdou Khadir yëpp la bàyyi woon xel wax naa leen mboolem koori ngerte yi nga xam daa sax ci sunna daf ko daan woor ngir dëpp ak sunna kon sëñ Abdul Ahad moom digganteem ak sëñ Abdul Xaadir leer na mooy da ko dénkoon aju ci diine ji bàyyi ko ak moom bi muy dem Màkka gis si fii am na yoon woo xam ne sëñ Abdul sëñ Saalihu bi mu dikkee dafa dikk Abdul Xaadir ñu ne ko fàttu na léegi de mu ne maanaam buñ ko yëgal ne ko ñëw naa fi ndax buñ ko waxee ne ko ñëw naa dafay ñëw buñ ko waxee ne ko ñëw na dafay ñëw ne ko ñëw naa bu dikkee daal buñ ko wax dara waaye ba mu dikkee laajte bañ na ko ñëw na fa it daal xam ne bu bu yeexee mu fekkaat ko fi kon waaye lépp ngir benn sëñ Soxayb moom gis ba leen mu jàngal leen taxaw leen yar leen da ko daan seet yi waxtu nekk itam kon diggante mag njaboot bu ñu ko doyloo seen kanam ñëpp rek wane na ne ku matoon sëkk lim doon la ndax imaam moom xam nga ne nañ koy tànne day doon ku mat sëkk ndax yonent bi sax waxoon na ima imaamu immatukum shufaaukum maanaam seeni imaam ñooy ngeen tinu ëllëg kii lay tinu ëllëg nag boo koy tànn da ngay xam ki ngay tànn te ñoom ñëpp doyloo woon nañ Sëriñ Abdul Xaadir def ko muy seen na ne joxoon nañ ko wàccu waay joxoon nañ ko cër waaye moom mu xam cër bi ñu ko jox ak wàccu waay bi ba tax la ca war lépp mu def gis ji rek bu daan jiite ji mooy koor muy tabaski daan wax ne bëggut ko xaar ndax bàyyi na xel ne fay teew xam na ne ña fay teew daa am ay yitt yu leen fi bàyyi ñoom ñëpp di ko xaar kon moom bëggul kenn di ko xaar moom na ci na mu ko daan def danaan ne oto na ñëw gaare ñu ne ko na ko daa mujj dox kon la mu doon sóoraale bis dal na ko moo laa yor rek bàyyi ba waxtu jot sëngam mu jóg oto ba paan nu mar def kon yooyu yëpp dafa doon bàyyi xel yu xeebu yi bàyyi wu ci woon maanaam xeebu ci woon dara moom moom ni mu ci meloon àgg na ci ab dayo kon loolu mooy relation nga xam ne ba njaañ di ñoo fi nekkut muy maami Sëriñ Tuubaa yi lu mel ni deqale daana fa dem di siyaara ji waaye itam barabu Sëriñ Tuubaa bi ajjuma ju ne daana dem di siyaara ajjuma ju ne da koo saxaloon yooyu yëpp ngir nen ko bokk yi waaye itam xam ne jokk ak bokk suñu borom tabaaraka wa taala daf koo digle te it kóllëre dëgg mooy ña doon jokk bu ñu fa nekkoon ña fa nekkal danañ dem di leen jokk ngir rek wéel loolu nga xam ne suñu borom tabaaraka wa taala noonu la amee woon ak kóllëre ci diggante mag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sëñ xam nga ne ñu bare bare ci mag ñi xam ne seeni njaboot ñoo nekkoon fii yor ko maanaam di ko taxaw sëñ Abdou Latif moom Mamor a xaritam woon loo xam boo xam ne jaxasoo woon nañ lool ba àgg ci ab ay njaboot ñu kër gi jaxasoo ak ñoom sëñ Mamor Seyna bi nga xam ne moom itam sama baay wala nga ne ko mooy sama baay jeex na kon loolu xam bokk gi te ku ne xam na ne taallamu min ansaarikum maa tasilu bi arxamakum nit ki su bëggee jokk ay bokkam faaw mu xam la mbokk ak ñoom moo tax moom ñi bokkal kenn ku nekk xam na leen xam moo xam ne àgg na ci ab dayo waaye noonu la noonu la daan demee ba kokki itam di jokki bokk ya fa nekk Kawlax dafa daan dem ba ci Ndakaaru barab yu baree ba dafa daan dem def ay ziar ngir jokk bokk gi waaye itam ngir nemmeeku taalibe yi su ma saa dem it lam leen daan dénk weesu wut ah, na ngeen sax ci sunna bu leen ëppal bu leen yéesal kàddu googu ku ma dégg ko ci kon sëñ Abdul Xaadir ak diggante mag bokk diggante mag jabagu sëñ Tuubaa gi lu rafetoon la ba àgg ci dayob rafet moo tax sëñ Lamin Jóob mu koy way ne muamalatu naasi nag li mu ci def moom lépp a jag maanaam muamalatu naasi moom lu jag rek la mat sëkk moom kon cofeel gi nit ñi am ci moom rek moo la koy woon Abdul Xaadir ñëpp am ci moom am cofeel ngir lan baax gum baaxoon yéen nit ñi jàmm Euh, jërëjëf sëriñ Abdul Xaadir jërëjëf ci euh, leeral yooyu nga xamante ni leeral nga ko euh, du ñu sax bëgg di la dog ndax dafa neex lool si Abdul Xaadir daa doon li nga ko waxee ñëpp ko bëggoon. loolu xam naa mooy li yonent bi sallallahu alayhi di jàngale rek ndax nit moom boo nekkee ci la la war moom ñëpp lay bëgg te yàlla bu bëggee nit day woo Jibril ba mu ñëw mu ne ko seedeel ni bëgg naa diw sàngam ci àdduna seedeel ni bëgg nga ko Jibril seede malaaka yi yëpp seede bu ko defee xoli jaam yi ak ñu nar texe ñëpp bëgg ko loolu dafa mel ne dafa dal Serigne Abdou Khader dañ koo bëggoon lool waaye nag mu neex a bëgg nag ndax koo xam ne wax nañ ne ab bindam moom lu la réeroon ci bind ku tedd ki xaadim rasul boo ko xoolee ci jëmmam ji da koy daal di seen ci tuuti waay bi ci njaxlaf gi ak itam fonk goo xamante ni fonk na ko diine yi loolu itam bokk na ci yi nga xamante ni mënees na ko wax waaye sëñ Abdou Khadr mënuñoo waxtaanee sa turandoo sëñ Abdou Khadr te taxawuñ nag dëgg-dëgg ci nekk gim nekk sunni yi nekk gim nekk mutasawif daan dund nag sunna dëgg nag loolu eh, yaakaar naa ne war nañ cee gën a taxawaat nag ndax dañoo toll foo xam ne eh, dañ dañuy xeex sunna yi nit ñi ñiy góorgóorlu sax néew dañuy sax xaw a woyafal sunna yi mu mel ne Sëñ Abdou Khadre daawul bàyyi dara lu ndaw ci sunna lu dul ne dana ko def wax nga fi léegi rawaati bi yi mu daan def ba ci dem ay ngénte dem ceet eh, seeti ku wopp wax nañ ne am na bis boo xamante ni dafa am benn ci ñi nga xamante ne ñoo daan julleeg moom ci jàkka yi seenu ko ab ab diir bu yàgg mu laajte lan moo ko daal te loolu sunna la ñu ne ko moom kat dafa xaw a tawat mu ne nañ ko seeti ba ñu noppee ñu dem seeti ko waa ji xam naa bi ñu demee mu yëg ne sëñ Abdou Khadre ngi ñëw mu ne bëri di jug ngir nuyu si ko sëñ Abdou Khadre ko bett nga ma de xaw moon ne man nga nii comme man nga nii waroon ngay ñëw ci jàkka ji kon kooku dafa mel ni kon toppoon na sunna ba mu jeex tàkk bëgg nañ nga gënal ñu ñëwal nag bu baax a baax ci sëñ Abdou Khadre ak nekk gi mu nekk sunni waaye nekk gi mu nekk itam mutasawif daan ko dund nag. jërëjëf sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Khadre ak sunna moom moo daan wax ne man sunni yi la maanaam loolu moo ko daan waxal boppam tax mu koy wooyee boppam ah moom na ko ndax nit ñaar lu mu bëgg rek day bëgg ñu koy wooyee da koy wooyee boppam moom na bëgg sunna tax mu ne man sunni yu la nee na tur yëpp mën naa ko bàyyi ñëpp ba mu des sunni yu bari sunni ko bàyyi kenn da wax bu noppi jëf ko nag sëñ Abdou Aziz Dabakh bi mu koy tagg daa wax ne kaana taqiyan aaliman sunniya kon loolu doy na sëkk seere ci ci ku mel ne si yëpp da baax comme seere ne ak sunni koo kenn ween waaye nag ko daan jëf ci jëf yi wax mat sëkk la maanaam daan roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bu nee nga teg ca sa tànk loolu mooy sunna moom nag dafa daan roy sëñ Abdul daan roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lépp maanaam daf ko daan roy ba ci ni muy kaalawoo yonent bi lañ daan roy waaye daf ko daan roy ba ci ni ne bu toogee faaw xibla lay jublu nga xam ne moom bu toogee xibla loolu sunna la maanaam saa boo waaye daf ko daan roy itam ba ci ni muy jàng alxuraan sëñ Abdul Xaadir li muy fonk fonk alxuraan du ko jàng ci waxtu woo xam ne bu àggee ci a sujjóot lu tax loolu sunna ba nekk ci sujjóotal alxuraan la bañ a bàyyi ngir wattandikoo day tax bu ko waree jàng te te waxtu wa dagantu naa fi la mu bàyyi ko ba waxtu wa dagan mu mu jàng alxuraan ngir bu àggee ci barabu sujjóot mën a sujjóot te ñu bari ci ñun bu ñu jàng alxuraan duñu bàyyi xel loolu sax te alxuraan dafa am fukki barab benn ci masab mali yoo xam ne ko fa àgg war ngaa sujjóot sujjóot yooyu ngir fonk sunna taxoon saa bu ca masa àgg day da koy sujjóotal soo waree jàng te xam ne du mën a sujjóot ngir dañuy tere waxtu woo ci sujjóot waxtu woo du ko alxuraan waaye itam daan nettali siira yonent bi aleyhi salaatu wa bëgg yonent bi aleyhi salaatu ak xam ne àgg na ci dayo bi yéeme war nañ daan àgg toog ba ci rëddantu ci ay baaraamam mel ni kuy wax ne yonent bi sam bu toogee ko daf ko wutaloon waxtu woo xam ne siira la ci nga xam day toog ngir nettali seer loolu ku ne xam ne ne mooy tax nit ñi xam sunna sunna li ñu bari ëmp liggéey tax ñu bañ ko maanaam na baax koo xam ne buñ ko doon nettali nit ñi man di ko xam te loolu ko xam sëñ Tuubaa ni meloon ci moom nga xam ne foofu rek la ko donnoo moo doon sëriñ Tuubaa ci bëgg sunna bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xarfan bi xarf kon sunna moom mbiram la moo xam ne daf ko daan wax waaye itam daf ko daan jëf wax nga léegi xeeti xew yi mu daan dem yëpp ngir xam ne ci sunna la bokk ba sa mbokk feebare nga seeti ko bu amee xew yëgal la ko min xaqil muslim xala muslim set maanaam aqi jullit jullit juróom benn la bokk na ci yooyu bu amee xew yëgal la nga dem ca bu feebaree nga dem seeti ko bu amee aajo itam nga taxaw ca yooyu yëpp sëriñ Abdul Xaadir daf ca daf ca daan taxaw taxawaay yu mat sëkk yoo xam ne kenn umpale ko wenn yoon kon moom sunna moom mbira woon moo xam ne woote na ko wax ca la nga xam ne daana ko daana ko jëf waaye wax kaddu bu ma seeg daana daana ko wax maanaam na ngeen sax ci sunna maanaam na ngeen sax ci sunna listiqaama baat boobu ku dégg ku wax sëñ bi da mooy li sëñ Tuubaa waxoon ne wala takun mufarritan aw muftan bal istaqim fii sunnatin maanaam bul ëppal bul yéesal moytu tafrit ifraat baat la boo xam ne ku dégg waxam déggaale ko ci kon kàddoom lu néew néew moom ak la muy néew néew baat yi dina ci feeñ moom nañ moytu tafrit ak ifraat waaye nañ sax sunna te mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kuy woote woo sunna xeex bidaa waaw mel na ku daan xeex bidaa la te tam ku mënoon a jàngale la nga xam ne nit bu defee lu lu ko naka sudul noonu ci jotaay dana fexe ba jubbanti ko ca wàllu googu ba dama faa jógee. dëgg la is jumi al xayru fi littibaahi wa jumi al charru fi libtidaay yiw yi mu ngi ci topp sunna ay yi mi ngi ci topp bidaa kon ku bëgg a mucc ci mboolem ay yi da dem ci sunna ku bëgg a dajale mboolem yiw yi da dem ci sunna waaye ku bëgg a mucc ci mboolem ay yi am na koo xam ne fii ci kër gi la nekkoon mas na di ko xàllal nit ñi di nuyoo mu ne leen nuyoo bale nuyoo bi dafa xat bu kenn nuyoo sëñ Abdul Xaadir na tekk di ko déglu mu àggal mu woo ko mu ñëw mu ne ko bul waxati bu leen nuyoo da nga naan bu leen joxe loxo ndax nuyoo sunna la gis nga sunna soo sa xeebu ndax nuyoo sunna la delloo nuyoo moom farata la waaye kon nit ki nga ne ko asalaamaaleykum ngeen wul koo tere kon loolu lépp bind la boo xam ni nga ko waxee léegi ku jàdd yoon ca saasa la lay jubbanti ndax moom yàlla daa dogal li ne ci xol bi mooy fee ci làmmiñ wi du wax ci làmmiñ wi lu néew ci xolam bii maanaam moom loola yàlla da ko ci mësaloon te bari waa na koy wax loo xam ne yéene waaye moom lu muy wax da ko yéene moo tax lu mu la nar a wax lu mu la wax mooy lam nar képp koo moom dara ndax la ko am wa maa tashaa'uun illaa inshaa Allah bu yàlla bu xasee soob yàlla moom day am kon loolu lépp woyof ci moom ndax lu mooy far rek ñu jàpp ñu ne mooy dëgg moo tax moom lu dul noonu du ko bàyyi mu jàll ci sens la ko jubbanti ku ko mas a nuyu takkub lam wala jaaro bu dee góor naa ne bu dee jox ko sama ju jigéen ku ko mas a nuyu takkub lam rek wala jaaru maanaam maanaam ëppal ay jaaru wala nga takkub lam wala seen ca saasa naan la lii boo demee jox ko sama jigéen jigéen loolu si yàlla ko nett ma ko moom moom suñu ci woon xaar ma yàlla maanaam koo mën a doon boo dikkee boo jubul mu teg la euh, nga xam ne ñoo daan ñëw ci moom daan ko ziyaare di leen laaj lan la ñuy liggéey bu fekkee liggéey ba fa dàqwanteeg li lislaam santaane mu ne nañ ko bàyyi loolu nettali nañ ko ci ay nettali wax nañ ma itam ne ma am na ci daayira boo xam ne dafa ñëwoon fii ci kër gi doon ko ziyaare ñu am ay soxna yoo xam ne dañoo kuréel di jàng waaye bi ci bunt bi gis ñu ay jigéen mu ne na dàkk daa du ko maslaa na dàkk ndax bu dagganoon yéen ay nodd ci jàkka yi ndax yéen neex baat góor kon loolu sëñ euh, Abdoul Khadir euh, Diop euh, xam naa ne waxtu wi moo ñu xoj lool ndax xaw naa nu mu traité ni nga ko waxee ci sëñ Abdoul Khadir dafa doonoon sunnit boo xamante ni ku ëmbaloon jaam ñëpp yërmande la woon doonoon itam koo xam ne li ëpp ci ay discours mooy sax leen ci listixaama nañ jaamu yàlla te moytu tooñ te sax ci xaama loolu moom kat gu gàtt lay doon seetaan naa band boo xamante ni da Mbàkke dañ nañ ñu dénk lañ ko wax waaye daanaka ñetti baat yooyu romb ko nañu jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla te moytu ak tooñ waaye sax ci itam listixaama sëñ Abdou Xaadir xam naa euh, sa turandoo de waxtaane ko xajut sax ci ay minutes wala ay heure kon su ko defee dañuy daal di tënk rek loo ñuy tënkalee jotaay bi rek Euh, ngir ñu tàggoo ak suñu bokki téléspectateurs yi. kay jërëjëf sëñ li ñu koy tënkee mooy ñu xam ne waxtaan yii jubluwaay bi mooy nettali gaa ñu baax ña day tax ñu mën leen a roy kon nañ xam ne lu ñu fi wax ci ay jikkoom ngir ñu roy ko tax ñu di ko wax te wax naa ne jamono yi ñu toll crise yi ñu moo xam crise valeur la moo xam crise sanitaire bi ñu wax sax sëñ Abdou Khadre yoon wa te mooy sax ci jaamu yàlla boo ko defee loo ñaan yàlla mu nangul la ko waaye itam liy dàq musiba mi mooy ñuy ñaan yàlla ak di ko jéggalu kon bisama ngi ñëw te ginnaaw ba mu feeñee jamono Sëñ Tuubaa daa waxoon ne bisam a ngi nii képp ku ci fas la ci bëgg suñu borom tabaaraka wa taala defal la ko ci kon nañ am yéene sell ci fàttaliku ko ci ñaanal ko ndax ñaan du doy waaye itam ci roy jikkoom ya ndax loolaa ci ëpp solo buñ ko defee yàlla mën nañu defal bisam bii lépp luñ ci ñaan yàlla nangul ñu ko te li ëpp ci lu ñuy ñaan gën ci ay xam nañ ne mooy jamono xat-xat yi mu toll ñu xam ne it sëriñ Abdou sëriñ Cheikh ko fi nekkal du wuuteeg mukk ndigalu sëriñ ni muy sàmmantee ñuy jiite ci ëllëg maanaam nit ki daa war bàyyi xel loolu moo tax sëriñ baa ngi digle ku fii ñëw ndax daje bi sax dañ koy tere waaye mi ngi koy wattandikuloo ku munta ñàkk ñëw bay ñëw it na nga sàmmonteeg li yoon digle ci bépp jumtuwaay boo xam ne bu ñuy wattandikoo la ngir xam ne lii ndigalul médecin yi la waaye ndigalul suñu Muntaxaa la sëriñ Cheikh mi ngi feddali loolu ngir sëriñ Abdul Xaadir këram moom kenn du fi moye ndigalul yàlla waaye kenn du fi noye kenn fi moye ndigalul ki la jiite ndax daana wax ne mu daarante leen ak ñi leen jiite lépp leen seen diine terewul

ñu ngi koy sant yàlla lu ci jubuti ñu xam ne as ndongo su xeeb rek moo ko doon wax ngir rek jéem a euh, gëstu ak euh, jariñu ak jariñe ci baaxu sunu turandoo waaye nga xam daana wax ne këram gi kuñ fi indi wàccuñu la daana ko wax këram gi la mooy kuñ ko jox rek dañ laa bëggal lu baax te danga ko fi am bu yàlla kon yàlla nañ bokk jariñoo njariñ loola nekkoon ci moom sëriñ Abdou Lahad asalaamaaleykum wa jërëjëf sëriñ Abdou Khadre Diop mu doon kenn ci euh, membre commission bi nga xam ne ñoom ñoo jiitee lu jëm ci màggaluk sëriñ Abdou Khadre gi ñu ngi koy sant bu baax baax ci kàddu yi wax dëgg xam-xam bi rafet na leer na Euh, njàngale mi itam wax dëgg yàlla message bi jàll na ndax euh, li ëpp solo ci li ñu war a waxtaane ci sëñ Abdou Khadir mooy ay jikkoom waaye diggam ak euh, sëriñ Touba nan ni mu fonkee woon sëriñ bi ak njabootu sëriñ Touba gi daanaka li ëpp solo daal wax nga ko ñu ngi lay sant bu baax di sant itam sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Khadir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak mbooleem ay rakam ay kilifaam yépp suñu borom yàggal leen fi waaye itam di sant itam ñi nga xam ne ñooy commission bi ci nangu gi ak euh, tawfeex ak euh, jàppandil sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Modou sëriñ Abdou Khadir ñu ngi koy sant bu baax di nuyu waa commission bi ñëpp di leen sant mbokk yi nga xamante ni yéen a ànd nag ñun ci seen site bi di Rafah TV ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax ci ànd ak wóolu gi ak topp gi nga xam ne ñu ngi koy topp seen site bi di Rafah TV lii lenn la woon rek ci li ñuy waajalee bisub Serigne Abdou Khadr Mbacke boobu nga xam ne ñi ngi ko war a màggal fii ci Touba ci 22 ci weeru août bi ñu nekk nii incha allahu taala di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ci ñu fekke ko te ànd ca ak euh, bi waaye itam ànd ca taw feex ak ngërëmal sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer بنا به ينفرد